moom borom daaru Moxti yàlla na fi yàgg te wér comme ni ñu ko daan defe at mu jot rek ñu koy def fii nag ci Paris ci ndigalu Serigne Mame Balla Mbacke moom Serigne moo daa Balla ñu koy ñaanal moo it suñu borom yàggal ko te wéral ko lool ci barke Serigne Touba kon ni ngeen gisee jataay bi rek at mu jot rek ñu jot ndigal ci Serigne bi ngir defe ko nañ ko daan defee fii ci Paris ci saal yi nekk ci Aulnay-sous-Bois incha allah màggal gi nag le treize lañ ko le douze incha allah le treize waaw le treize muy samdi treize mai incha allah lañ ko war a def ci Aulnay-sous-Bois ñu ciy soññ mbooleem bi yëpp rek ak daayira yëpp yi ñu ko daan àndal moo xam daayira yi nekk ci yi yëpp rek ak kuréel yi ci nekk yëpp rek ñu ngi leen ci woo di leen ci soññ te xam ne bis bi moom bisub murit yëpp la bisub jullit yëpp la sax ndax li muy liñ ciy màggal mooy bi sëriñ bi jullee jógee ci géej gi te woo borom daaru ñu jóg ñu daje ca Ndar nga xamante ni kon mooy mbégte la ak feetu jullit yëpp daal ba tax na ñu ngi ciy soññ ñëpp. Hmm. te jëmmi borom daaru ni ñu koy waxee rek nga xamante ni sëñ Mbay Jaxate da koy wax dama koy fàttali saa su ne. ñu naan waxtaane yàllaa ki gaayam cër bu nit masa am xamal ni kat ca la juddoo yow murit bi xamal. kon nag euh, maam Cerno borom daaru kenn ku ne xam na ni waaye yàlla kon nag waxtaane ko hmm. ak ak ak ak màggal ko lenn lu waay bëgg rek mën na koo am ci bis boobee hmm. te leneen la ma ciy dolli rek kenn ku ne xam na ni wa inda zikri saalihina tanzilu rahma fi foo nga xamante ni dañ fay waxtaane gaa yu yàlla yi yërmande suñu borom dafay wàcc loolee nag tax na ñu ngi ci woon ñëpp képp ku bëgg yërmande suñu boroom rek bëgg amit ngërëmal suñu borom boo ñëwee ca bus boobee ànd ko ñun ñu jàpp ci noo ko mën rek moo xam ci jàng alxuraan ak jàng xasida ak def ci saw ñàkk ñu ngi ciy woo ñëpp. Hmm. kon foofu la ñuy tënk rek di ñaan egg ca ak jàmm te lañ ca def lépp yàlla nangul na ko. ci barki sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jërë ngeen. salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh. yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme ni ko Kara Samb waxee rek. noo noo fas yéene màggal màggal gi ji comme ni ko daan defee rek. di ndigaleel yal nañ ci yàlla defal luñ ci seen lépp ak ki maam Thierno di di ñaan sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér ak sëñ Abbas Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Cheikh Jëmbu Fall na fi yàgg te kon nag maa ngi jox sëñ Guèye mi mu woo mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci sëñ Modou Kara Mbacke nooree nii bismillah bismillah awuzu billah bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum mbokk taalibe ngi ziar ñëpp di leen ginnaaw bañ ci amee ndigalu ki nga xamante ni mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di Cheikh Ahmadou suñu buntu si Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di suñu buntu si maam Thierno Ibrahim Mbacké ndaamal daaru ñu ngi leen di woow bépp mbokk taalibe bu aju si kër Seydina Ousmane Mbacké Noreyni te nekk biir France waxuma Paris damay woote biir France ak li ko wër maanaam lu si mel ni Bruxelles ak Allemagne ñu xam ne sëriñ bi moo joxe ndigal pour ñu ñëw participer si màggal gi ba ñu xam ni waa Kër Noreyni ñi ngi fi daal bi ngi boole ñu si liggéey bi ak leeram di sang Moustapha Mbacke ñu ngi ciy woo bépp mbokk taalibe di si woo suñu mbokk Baye Fall yi di si woo ñëpp daal di sàkku seen teewaay ak seen jàppandal si bés bi jaa ngeen jëf aoudu billahi maa ngi woote ci bisu màggalu Daaru Muxti gii di jëkkal samay wax di ñaan sëñ Sidil Muxtaar suñu borom yàggal ko fi sëñ Abbas Mbàkke borom Daaru Muxti suñu borom yàggal ko fi ak sëñ Moustapha Absa li ñu woote man sama wax li ma koy jël maa ngi koy jëmale ci liggéey bi nga xam ne sëñ Abbas Mbàkke sumb na ko mu jëm ci liggéeyu Daaru Muxti bi muy carte yi ngeen gis ñu yor ko carte yi sëñ Abbas Mbàkke daf koo def yónnee ko fii ci Europe pour ñu dimbali ci mbokki taalibe yi dimbali muy liggéey ba nga xam ne moom lañuy liggéey ca Daaru Muxti liggéey bi carte yi mi ngi nii 10 euros lañ koy wecc ko di ko yóbbaale bu bis baa ca saal ba niy defee màggalu daaru Muxti gi am na ci biir paret foo xam ne ku fa demit di nga fa am carte yi pour mën ko wecceeku ñoo ngi koy def liggéey boo xam ne mu nga jëm ca daaru Muxti la jëm ca hôpital ba ay taliya ak liggéey bu bari boo xam ne sëñ Abbas sumb na ko mu jëm biir daaru ak defaraat jumaa ja yooyu yëpp ku jey woo ci liggéey daaru mooy la ma ngi lay woo ci yoonu yàlla que liggéey boobu bu soobee yàlla danañ wecc ko carte yi 10 euros mbokkum taalibe bi bu ñëw di ko waajal wala lu woon a wecc ku lu ëpp loolu it boo ñëwee ñu wecc la ko bu soobee yàlla. Hmm. ñoo ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp di ñaan ñëpp ñu fekk ko jàmm ak jàmm ba bis ba incha allah kuy ñëw nga waajal ko ci rajo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf. bisimilah rahmaani rahiim yàlla di commencé màggal gii di woo ñëpp. magal bu daar Musti bi di ñaan ñëpp teewe ko ñuy fekkee ko te weesu ko yàgg koo fekke ci kàddu soxna moom Mbàkke moom sëñ Seex Xadi nee na mi ngi woo jigéen ñëpp bu kenn des na ñëpp ñëw ñu ngeen ko daan taxawee jàpp ci mu ngi leen di ñaan ku dégg nag woote bi rek moom amul looy xaar nag murit moom ndigal ñoo ngi leen di woo di leen ñaanal ñu yegg ci ak jàmm ngeen jàpp ci niñ ci daan jàpp waaw di leen sant di leen gën